merci beaucoup président madame la ministre mang lay leen nuyu yow ak ministre nga tok yep ak ses collaborateurs madame la ministre dama gis ci rapport bi ñu yónnee ci li nga xam day dotation 2024 bi dañ ci prévoir un scanner pour l'hôpital magalo de linguer ñu diko saluer bu baax baax lolu nak firnde ji moy kené dag ma yónnee ben lettre barki dem wan ma ne ma dotation bobu nga 2024 la prévoir nga ci Linguère pour mu am un scanner kon ñoo ngi leen sant bu baax a baax ci loolu nga xam ne dañoo toogoon fii doon ko jooy nga wan ñu ne danga ko def merci beaucoup madame la ministre ñun xam na ne vous ne faites pas la sourde oreille bu loolu weesoo madame la ministre le département de Linguère yaakaar naa ne tey dañ lay féliciter dañ lay remercier ci man li ma gis parce que tey la commune de Sangatta yónnee nga leen benn euh, euh, maanaam ambulance yone nga wat euh, Labdar ben ambulance te barki dem boo njaay l'hôpital de Linguère jot nañu sen ambulance kon yaakar na ne tay buñu wax ambulance au niveau du département de Linguère soxla nañu ko nak bu baakha baax ci yenen village yi ak yenen dekk yi ciel mom duma bay di lako wax ma ngi fatali bu baakha baax dimbale ci ciel madame le ministre ñu gisim na ci sa rapport wax nga les centres de santé au niveau euh, au niveau national yaakaar nga ne xalaat nga ci sa disponibilité da nga ambulance loolu ñu madame le ministre ñu gis tam ne eh, les EPS programme pour des ambulances kon loolu ñu koy saluer bu baax madame le ministre yow xam nga sa xam nga la jox te ci son excellence de président de la république xam ne ki mu choisir le ministère de la santé madame le ministre le district de Dara le bloc opératoire mang ngi la koy wat pour un respirateur d'anesthésie ak yenen matériel yoo xamné soxla nañu ko le village de Gulu, madame le ministre c'est un gros village ñu bëgg nag ñu def ko en poste de santé bindoon nañu ba indi dossier bi mi ngi nek en cours ñu bëgg ngeen taxaw ci ndax village bu mag la le village de Mbeyen ñoom ci seen demi bop dañu tabax ben poste dañu tabax ben maternité ñu bëggoon ku leen jappalé ci sage sam ak matériel am nañ fa tam ay case de santé de bonne volonté yoo xam ne dañu fab seen xaalis tabax des cases de santé lu mel ne le village de Cikoñ ak yeneen village yu fa nekk ma bëgg ngeen jàppale leen ci matériel madame la ministre les handicapés nee nañ ñu ba bëgg ngeen jàppale leen ci seen carte d'égalité échange yooyu ak ngeen bëgg ngeen di leen insérer madame la ministre le département de Linguère ñun de vraiment dañu bëgg ngeen gën ñoo dolli mais xam na ne yéen koy def seen loxo man mii nga xam ne de ci ministère bu ne lay taxawaalu ci direction bu na lay taxawaalu te fu ne lay war di laajte ak a xam xam naa ne yéen yéen ngi dimbale bu baax a baax le département de Linguère man maintes fois ñëw naa sa ministère nga jox ma ay matériel ma yóbbu ko au niveau du département de Linguère jox ko ay poste de santé jox ko ay case de santé ci ay matériel yu bari waa Labgar mën nañ ma waa waa Barkédji mën nañ ma témoigner loolu waa Thiel mën nañ ma témoigner loolu waa Melax mën nañoo témoigner loolu waa daara mën nañ ko témoigner waa mbeeyeen mën nañ koo témoigner ci loo xam ne ay matériel nga ma jox ma yóbbu ko au niveau du département de Linguère distribuer ko kon case de santé yooyu madame le ministre dama ne lu ngeen leen mën a jàppale ci matériel ngeen jàppale leen ndax waa dëkk yi ñoo am seen volonté wut seen xaalis tabax seen ay case de santé ma bëgg ngeen jàppale leen ci matériel ma dem le ministre ñu dañ lay sant di la gërëm xam nga lu tax bu ñu fekk pas la da ngay déglu nit ñi di wax ak nit ñi ubbeeku man li ma gën a neex ci yow loolu ci la bokk te da nga xàmmee nit ñi nag danga nga xàmmee nit ñi de te loolu c'est très important. je